aywa yenn kaay ak la ñu xëyee Cheikh bu yàngoo ne lañ ci àndal maa ngi lay nuyuwaat di la ziar. di la ziar wér euh, Fati maa ngi lay fay nuyu sama naataango yu ma bokkal plateau bi nuyu mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média. aywa ñu doore ko ak euh, l'observateur mu mel ne à une euh, ñu ngi ci wax lu jëm ci wàllum ceeb. lu mel la mën na am du neex ñi nga xam ne nag euh, moom moo di euh, njaayaan yi réew bu Sénégal ku wul itam lu ni mel euh, mënees na fa indi ay jiixi jaaxa ndax itam yenn ci stock yoo xamante ni amoon nañu ko fii ak deux jàpp ñetti weer ñaar jàpp ñetti weer la ñu mën a yóbbu mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di wàllu ceeb bi ndax itam Inde li nga xam ne da ko doon amal jëm ci mim réew ci la jamono li mu xamle mu di da ko soxla mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page 5 bu l'observateur l'observateur leneen lu mu xëyee na ci jëwriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu ndox mi moom Serigne Mbaye am dawal nay àddu eh, ci lépp lu ñel mbënd mi ci Ndakaaru ca diwaan bu Touba jafe-jafe yi nga xam ne itam eh, moom la ñu fa nemmeeku ba ci sax milliards yi nga xam ne eh, moom la ñu sóob ci wàll wi ca diwaan bu Touba xam nga ne nag euh, daal nañuy euh, dugg ci euh, safar gi moom Serigne Mountakha Al Bachir xalif général kullu murit daal dinay joxe yenn ci ay dictée yoo xamante ni bëgg na mbokk taalibe yi daal di jëfe lu ni mel ci page 2 bu l'observateur la ñu ko nittilee leneen ci loo xamante ni mënees na ci addu muy kilee di Mariama Badji xam nga ne moom moo gañe li nga xam ne nag moom moo di teranga Sénégal daal nay addu jafe-jafe yi nga xam ne amoon na ko mu ñeel wàllu dëkkuwaay luyaas wi nga xam ne yenn saay mu fay ko da doon doon ay jafe-jafe lépp lu ñeel itam assemblée nationale ci la jamono moom njiit bu réew mi lam cay lépp ñu ngi koy nettali ci li nga xam ne nag moom moo di page 4 tribunal bu ndakaaru kenn koo xamante ni euh, ab euh, sëriñ la ab cousinam ak itam lenn ci miracle yoo xamante ni nag ñu ngi ko doon amal ci ay téere yoo xamante ni dañ ko doon amal ak wàllu sperme lu ni mel l'observateur dal ni ci dikkaat bu baax a baax ginnaaw fa euh, l'observateur Fatou ñu wutali beneen ab yéenekaay muy enquête mu ñëw ci ñeenteelu législature yi nga xam ne itam ci la ñu daal di tàbbi une opposition difficilement réconciliable mu daal di xëyee photo ki nga xam ne nag moom moo di Thierno Alassane Ousmane Sonko ak itam ki nga xam ne moom moo di Papa Djibril Fall. aywa ñu yëngu ci le quotidien le quotidien dikkaat tey ci mbirum li nga xam ne nag moom moo di assemblée nationale choc des euh, euh, mm-hmm. euh, Askan Wi Ahmed Aïdara mm-hmm. se juge le plus légitime des candidats lu ni mel rek daal di xëy fësal ginnaaw itam bi mu rek daal di jukkee yenn ci ay photo ci ñoo xamante ni ñu ngi féete ci kujje gi aywa ñu dem ci beneen yenn kaay muy le mu di le soleil le soleil dikkaat bu baax a baax ci li nga xam ne nag moom moo di reportage yi nga xam ne dañ ko koy faral di amal bi la yoon ca euh, euh, pakaaw la ñu rek daal di dem wax itam ci li nga xam ne moom moo di Dana Bengo ab festival yu euh, maître chasseurs yi maanaam ñi nga xam ne dañuy faral di rëbb aw yéen reportage bu yàlla ci def ci li nga xam ne moom moo di page onze jàpp faat yi aywa dem ci libération libération ak jéye ji nga xam ne nag moom moo am ca diwaan bu Kolda di lu doy waar ambulance boo xamante ni xam ngeen ni ay malade la faral di yëpp bi la yoon nag nag lu toll ci euh, téeméer ak ñaar fukk ak juróom euh, ci ay kilogramme bu euh, yàmba la daal di rek yëpp ba mu fees waaye rek ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di way takk der yi def seen liggéey ci wàll wi def itam jëfkatu ñaawteef yooyu jàppal ne ndaamaar bu ni mel mi ngi doon wutali fi nga xam ne nag moom moo di ndakaaru leneen lu doy loo xamante ni libération xëy na ko fësal ca Tiwaawan Pël jàppale nag génn góor bu wuyoo ci turu Cheikh Boubacar Diallo moom moo doon yàqtaan benn tout tànk woo xamante ni nag ay atam tax na ko néew lool mënees na ko àpp ci juróom benni uh, at uh, moom moomee nag doon ko rek dugal ci tabax bu yeggul mu mel nag ay ouvrier uh, ñoom ñoo daal di gis nu ni mel tënk nañ ko ci ñetti ponk daañ ko gën a faram-fàccee ci ñaareelu li nga xam ne moom moo di pàcc wi daañu wax itam ci faux CMC wi nga xam ne nag ñu ngi ko doon joxe ca diwaan bu Koungheul lu toll ci ñeenti junni lañ ko doon weccee ko way takk der itam def nañ seen liggéey ci wàll wi Fatick tribune la tribune di kaat bu baax a baax ak i kaat bi nga xam ne Serigne Habib Sy Dabakh daal dina koy yëkkati dankaafu njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall mu ñeel li nga xam ne moom moo di ñetteel bi mandat aywa ñu dem ci Walf Quotidien Walf Quotidien dikkaat bu baax a baax ci lépp lu ñeel candidature bu euh, njiit mu réew mi li nga xam ne itam moom mooy yoot conseil constitutionnel lu ni mel daal na ci addu mu soxal li nga xam ne nag moom moo di euh, page 3 euh, recrutement yu jeunes yu Benno Bokk Yaakaar moom Barthélémy Dias da daal di xëy fësal li nga xam ne nag moom moo di ay kàddoom Walf Quotidien gisee nu ni mel aywa ñu ñëw ci Les Échos Les Échos ak li nga xam ne nag moom moo di ambulance bi nga xam ne moom la ñu teg loxo tañ ko koo doon faral di yëpp ay aji tawat bi la yoon mu yëpp li nga xam ne nag moom moo di euh, yàmba mu mel ni itam gendarme yi def seen liggéey bu mucc ayib ci wàll wi euh, première femme procureur de la république fii ci réew bu Sénégal Dior Fall Sow daal dinay àddu euh, ci lépp lu ñeel wàll yoon fii ci réew bu Sénégal anam wi nga xam ne ndam ku ne noone ngay gisee yenn ci ay kaddu yoo xamante ni jot na ko rotal ci li nga xam ne nag moom moo di les échos. aywa bés bi le jour bés bi la daal fësal ci kàddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati mu ñeel màggalug maam borom Touba bi ca diwaan bu Matam itam jàppal ne li nga xam ne nag moom moo di dex ba moom moo daal di déborder ku moywul wutali li nga xam ne nag moom moo di makkaani booba ak léegi ñu ngi ci uh, addu ngir rek daal di uh, jëli pexe uh, ci mbir mu ni mel leneen ci loo xamante ni langue politique bi moom Doudou Wade daal na koy xëy fësal ci li nga xam ne moom moo di page 2 jàpp 6 mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di toogu gi ci assemblée nationale lam ca xamle euh, moo di nag euh, bu euh, fekkee candidat yi dafa bëri lu ni mel dina jur aw échec ay kàddu Doudou Wade la. aywa ñu ñëw ci L'As quotidien. L'As quotidien di kaat bu baax a baax ci li nga xam ne dañ koy amal bi la yoon nag ci royaume d'Aussie la ñu rek daal di xëy fësal un micro état au cœur du Sénégal lu ni mel la rek daal di xëy fësal ci xëtam bu njëkk mënees ko lire ci wàll wi. aywa ñu ñëw ci ba tey ci li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, lile muy euh, France Sénégal ce que disent réellement les conventions d'entraide judiciaire ak itam extradition lu nu mel la rek daal di xëy fësal ak itam ki nga xam ne moom moo di nataalu xale général kullu murit Fati. yi source a. source a dikkaat ba tey ci lépp lu soxal entretien wi nga xam ne amal na ko ak maire bu Mermoz Sacré-Cœur ginnaaw itam aw audience wi nga xam ne jur na coow ak njiit bu réew bu Sénégal Alioune euh, Tall daal nay addu ci li nga xam ne euh, ci la jëlee lu ni euh, mel mu mel ni itam Kaolack def nañ seen ak tànneef ba pare mu mel ni nag Khalifa Ababacar sàll la ñu rek daal di jox bopp mu ñeel li nga xam ne nag moom moo di jongante yi. aywa le temps moo quotidien. le temps mooy fukki at ginnaaw itam bi mu ñàkkee li nga xam ne moom moo di pouvoir bi moom njiit bu réew ba woon maître Abdoulaye Wade mel na ni jant saa su ne day gën a fenk. ñu ñëw ci beneen yenn kaay muy Sud Quotidien Sud Quotidien dikkaat ba tey ci njeexateluk euh, mandat bu njiit bu réew bu euh, Sénégal moom président Macky Sall xam nga ne li ko fi desee ay weer kes képp dong la euh, ci les jamono itam mu mel ni kuy sëngeem Sud Quotidien gisee lu ni mel ñaareelu pàcc wi ñu dikkaat gën a faram-fàcce li nga xam ne moom la ñu àdd ci wàll wi. tàggat yaram ak record. tàggat yaram ak record Kalidou Koulibaly wi nga xam ne itam na namaat na dikkaat ci match bu am solo wi nga xam ne itam daañ ko amal niki tey bu 18h45 jotee Chelsea Southampton lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 6 bu euh, yéex ak bu njëkk wu yéenekaay bu euh, groupe Futur Média bile waxaat na itam euh, ci lépp lu ñeel wàllu basketball lu soxal itam bilan chiffré moom góor gi redresse la barque lu ni mel rek daal di xëy fësal di tànneef bi nga xam ne am nañu ko ci góor Gorgui Sidien yi Eh aywa ñu dem ci stade Edouard Mendy dikkaat Edouard Mendy mi nga xam ne euh, ba tey day wéy di enchaîner ginnaaw itam xarañteef mi nga xam ne nag euh, moom la euh, wane moom Kalidou Koulibaly itam ñu koy xaar ci match bu am solo niki tey 18 h cinq lamb ak euh, sunu lamb. Lac 2 Père Gris Eumeu Tapha Tine waaye ku moywul mënees naa bokk yoon ak nga xam ne rek moom moo di euh, doomu Parcelles Assainies bi moom moo euh, Modou loo lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di sunu lamb Fati pàcc wu njëkk mm. wi nga xam ne nag moom moo ñeel yéenekaay yi xëy fësal ni ki tey ñaareelu pàcc wi ñu dikkaat gën a faram-fàccee lu ni mel à tout à l'heure. jërëjëf Cheikh Diop ci kanam incha allah di nga dellu si ñu gën ko faram-fàccee. aywa Chérif Malick Thiandoum Marcel Farba Maroun ak tu bi yéenekaay yu bëri Euh, dellu siwaat na ci euh, yéenekaay yi nag ñoom ñoo ko xamle ne intercoalition bi di Yewwi Wallu euh, dañoo am ay candidats yu bëri te loolu nag mën na affaiblir amaana li nga xam ne moom mooy kujje gi naam am am nañ taxawaay bu am solo paax doo foofee ci assemblée nationale. jërëjëf euh, soxna Fatou yi naa ni loolu fi mu nekk nii euh, balaa ñu yegg ci le 12 bi nga xam ne ci la ñuy samp assemblée bi mun nañu wax ni jamono ji euh, c'est le temps des manœuvres ndax li nga xam ne moo di constitution groupe parlementaire yi déjà ñi ngi ciy waxtaan au niveau de la grande coalition yi Wallu pour xool ñaata groupe parlementaire la ñuy am ñi ngi wax ni au moins dinañu am ñaar am na ñuy wax ni ñett dinañ ko am waaye li indi actuellement nii Euh, peut-être coow li mooy ban président moom la ñuy samp pour assemblée nationale bi di ñëw wala ñoom ban candidat la ñuy teg pour euh, briguer euh, ci perchoir bi mu mel ni que président Ablaye wadd moom ak ñi nga xam ne ñoo di waawallu li ñu wax mooy dañu bëgg Lamine Thiam nekk président bu assemblée nationale mu mel ni que sonk yi tamit àndandoo ci lu ni mel ndax Lamine Thiam bu ñu fàtte nii euh, c'est un homme du du sérail yàgg na ci assemblée nationale nekkoon na fa questeur am na expérience pour diriger lu mel ni li nga xam ne moo di perchoir bi mais en plus dafa war a nekk un candidat consensuel te ñoom jàpp nañ bu fekkee ni Lamine Thiam jiital nañ ko ñu samp ka mën na am sax beneen wàll ga mu am ay sympathisants yi nga xam ne dinañ ko jàppale parce que ku ne xam na ne. Euh, ci wàllu famille libérale bi moom Lamine Thiam am na ci ay xarit am na ci ay am di jàmm mais ñu gis ni Ahmed Aïdara également euh, légitimement moom tamit wax na ni bëgg na euh, samp ndëndam pour nekk président mm-hmm. bu assemblée nationale loolu boo ci toftalee ambition yi nga xam ne ñi ngi koy prétendre ni Barthélémy Diaz am na ko le maire de Dakar parce que bu fekkee ni Barth tey dafa nekk maire de Dakar président de l'Assemblée nationale dina am envergure bu nga xam ne dina ko dina ko ko may mm-hmm. ko may ba nga xam ne tey opposition bi dafay nekk pratiquement euh, ci ñi nga xam ne ñooy kàngam yi ko jiite. Mhm. loolu yëpp nag tax na ba tey euh, la conférence des leaders danañu daje waxtaan parce que li gën ci ñoom. Mhm. mooy ñu am un con un candidat consensuel. Mhm. am benn candidat yóbbu ko ci la ñuy am plus de chance. pour euh, remporter élection présidence su assemblée bi parce que bu boobaa. ak seen quatre-vingt-deux députés yi. benn bi rek mën nañ. travailler ba am ko wala ñaari mën nañu liggéey ba am ko parce que vote bi c'est un vote secret mais bu fekkee dañu disperser seeni force hmm. bu boobaa dañuy affaiblir aywa Chérif. 80 députés la ñoom. plutôt benn moo amoon 82 plus la voix de Pape Diop muy 83 donc quelle soit la situation. Mhm. déjà même bu ñu amoon benn candidat amoon chance. Mhm. ngir pour jàll li nga xam ne la jël contrôler lii di assemblée nationale ci personne à moins que ñu ronqat ci ay députés yoo xamante ni ci benn bokk ak la nekk ñoom waa Yewwi Askan donc comme ni ko Doudou Wade di waxee nga xamante mo moom quand même c'est un homme d'expérience échec la ci seen intercoalition ñu dem ba ci ay postes ñu koy xëccoo. Mhm. te opposition bi yenn saa yi loolu lu reproché ñi nekk ci pouvoir bi naan ay ndomb tànk ak euh, lu jëmee ni ki ay privilège moom moo tax ñu daal di xëccoo te ku ne xam ne ne assemblée nationale quand même présidence ba tamit dafa am lu mu laaj ci li nga xamante ni moom ay matukaay ci ay bagages wax nañ ko comme ni ko Malick waxee en tout cas en terme d' bu dee rek d' mm-hmm. muy ñi nekk bennoog ñi nekk fépp moom boo jëlee ku mel ne Lamine Thiam moo leen ko ëpp parce que boo xoolee depuis ay 98 ba léegi même avant parti démocratique sénégalais. Mm-hmm. di ñëw au pouvoir il est à nationale donc li nga xamante ni am que xamoon na aussi li nga xamante ne mooy question bi daal di koy jiite. Mm-hmm. mais c'est pas suffisant parce que aussi bu leen fàttali ni ñoom waa parti démocratique sénégalais 26 députés lan am boo jëlee li am lépp en tout cas seen coalition muy wàllu Sénégal 26 députés lan am. Mhm. yow askan wi ñoom ñoo am 56. est-ce que aussi buñ di tànn président assemblée nationale duñ ko tànn ci coalition bi ëpp lim yóbbu ay député foofu ci assemblée nationale loolu aussi logique la boo xamante ni. Mhm. mënees na ko nangu te entre ñaar ñi nga xamante ñoo koy xëccoo aussi muy Ahmed Aïdara bi ñu wax ak Barthélémy Dias Barth aussi a la moom nag nit ñi xëy na duñ ko lu bëri baat de mais attention c'est quelqu'un boo xam tamit ku jar xel la parce que il fait très bien la politique très bien te nit ñi nag euh, des fois duñ xel te mm-hmm. le fait que muy dem assemblée nationale tamit légitimement war na mën a nekk amet aussi problème expérience quand ça se parce que c'est une première déjà pour lui pour la ville de Guédiawaye pour mu nekk député mm-hmm. te kon a xam ndax majorité ñi nga xamante ñoom ñoo am majorité bari woon donc muy loo xamante ne en tout cas au sein de Hmm. ça va poser problème bu dee ñoom jubóowuñ ci rencontre bi nga xamante ne on l'a cet après-midi ça fera l'affaire bi nga xamante ne mooy les adversaires de Benno bi nga bokk yaakaar bi nga xamante ni hmm. mooy nekk seen candidat wala moom la bëgg ñu fal les hmm. gens vont quand même mu daal di li nga xamante ne mooy assemblée nationale mais quelles que en tout cas les ambitions nan xam ni Benno Bokk Yaakaar déjà am na majorité bu ko le malheur des uns, fait le bonheur des autres. Absolument. Allez, euh, Marcel. waaw c'est euh, bi euh, manko doon benn mhm. euh, mais après bon malheureusement il y des réalités yoo xamante ni en en interne la day day laal politique donc ni ko Chérif waxee ni ko Doudou Wade repris ni mu reprendre déclaration Doudou Wade yi je pense que c'est quelqu'un de très expérimenté boo xamante ni tey bu waxee ci ci ci wàllu boobu donc xam na xam na li muy wax mm. Euh, même si Ousmane Sonko avait fait savoir en tout cas d'après le, le quotidien il y a quelques jours de cela que li ñoom loolu la ñu loolu la ñu convenir woon en tout cas seen seen biir inter intercoalition euh, et que donc euh, mën na mënoon mënoon na gën a dooleel intercoalition boobu face à ce face à majorité présidentielle bi nga xamante ne moom mooy nar a nekk à l'Assemblée nationale pour li nga xamante ne moom mooy opposition bi seen seen tête de en tout cas ñu mën a nekk président Euh, de l'Assemblée de l'Assemblée nationale entre Barthélémy Diaz et Ahmed Aïdara je pense qu'il y a il y a déjà une une une querelle en interne boo xamante ne mën na ci mën na ci juddu entre les deux qui rappelons-le ñoo bokk ñoo bokk même coalition bi. Euh, après euh, Barthélemy Diaz effectivement war na mën a nekk euh, le le candidat idéal du fait que moom tamit moo ëppale expérience quand même ki nga xamante ne moom mooy Ahmed Aïdara ci ci wàllu politique ak ci assemblée nationale. Mm-hmm. et puis faire renaître concept bi nga xamante ne Pape Diop moo ko fi amoon benn jamono nekkoon maire de Dakar nekkaale président assemblée assemblée nationale mën na mën na am itam mu mu loolu en tout cas toujours est-il que du ce même Doudou Wade précisé il y bu fekkee ne président groupe parlementaire yi euh, en tout cas moom comprendre ñi nga xamante ne ñu conseil opposition bi ñu bokk ci même groupe parlementaire te risque la. Euh, bu ñu aparte appartenir benn benn groupe mënatoo démissionner mm. nee na par exemple waa waa wàllu bu fekkee ne ne les vingt quatre députés de de wàllu ñoom dañuy dañuy démissionner mënatuñu créer beneen groupe parlementaire donc mm. euh, am na ay risques yi mu ciy comporter loolu waral on attend la suite pour euh, d'ici ce soir mm-hmm. xaar seen déclaration lan lay lay nar a joxe ah, la conférence des leaders bu ñu réunir je pense que daañu daañu trouver consensus parce que c'est ce qu'il faut de Euh, nee na ñu président Macky Sall tànnal koo ñu tànnal ñun ñu ngi ci ginnaaw. Mhm. donc ñoom euh, amuñu problème boobu donc c' est au niveau de l' opposition maintenant. Mhm. qu'il faut trouver un consensus pour un candidat idéal. Mhm. pour mën a dem ci élection yi mu xaw a tuuti. très bien et vous. waaw soxna Fatick li El Hadj Malick wax rek. Euh, conférence bi daal des leaders mooy déterminer la mais je pense que ku ci nekk aussi tu besoin de te faire voir parce que ñoom dañuy soxla loolu ci wàllu stratégie même bu la leeree ne tamit li ngay yootu doo ci jot mhm. waaw dalay mën na la may sa positionnement gën a gën a gën a gën a baax mhm. te loolu yaakaar naa dafa am solo ci wàllu stratégie politique mais vous voyez éclater moom du am suspense xëy na bu doon ku nekk en tout cas les coalition ku nekk présenté nga candidat suspense au au moins dina ci comme vote secret am na koo xam tamit gisuma ko ci coow li muy Mamadou Lamine Diallo te am na ñoo xamante ni ñu ngi woon en tout cas au sein de wàllu ñu ko doon ñu ko moom mais moom son mooy quand bokkul parti démocratique sénégalais ñoom dañ ko yóbbaale woon mm-hmm. xëy loolu mooy nekk problème mooy nekk problème merci beaucoup jërëjëf ñu jot na euh, ba tegal ñetti simili